loo yëg léeg kaay bi xëy tey ma daal di leen koy yëral inna lillahi wa inna ilayhi rajoxoon ñaari nit ñoo faatu ñàkk seen bakkan ci démb sa duwaanu tuuba gannaaw taw bu metti boo xam ne kon nag lañ fa nemmeeku ñaari bakkan daal di si rot ay dégâts yàqu-yàqu yu bëri ñu daal di ko fay nemmeeku dëkk bi nag daal di fees comme maara day taali wala fu quotidien da ko inondation si dëkk Bamba taw bi fa bëri démb de lii dafa ëpp dëkk bi nag daal di fees dell lu jëm si jumaa comprendre laa la wax yéeglekaay bi nañu ñaari nit ak ñoo si faatu ñàkk seen bakkan ay kër yu bëri nag daal di yàqu seeni bagage fi mu ne nii daal di dem ànd ak ndox mi nag daal di fees ñàkk seen bakkan quartier yu bëri nag fi mu ne nii ndox mi moo ko daal di nangu fépp fa romb ndox la ndox bi fees dell ba mel ni déeg moo taxit askan wi kon fi mu ne nii dañoo tiit waaye tamit si ñàqare dañu nekk de ndax ñu si bëri si ñoom day saan amuñu sax fu ñu dëkk am na kër yoo dafa mujjee sax maabu saat daanu ay téeméer sa ay kër fi mu ne nii kon nag ndox mi daal na koy nangu ba fi mu ne nii gaañ seen borom dañoo mujjee génn di yuuxu wallu ndax amatuñ fu ñu dëkk les éco nañu gis nga lu wër jumaa Tuubaa bi moo tax sapeur pompier bu Thiès ak Diourbel dañ leen mujjee déployé ngir ñu dem sa duwaanu Tuubaa ngir wàllu askanu Tuubaa tribune quotidien na ko gis nga situation bu doy waar moo am nag sa duwaanu Tuubaa ndaxte Tuubaa dafa fees dell nag ak ki ndox moo taxit ñaari nit ndeysaan daanañ ciy faatu ñàkk seen bakkan lu ëpp nag fanweer sa ay kër fi mu nii ndox mi moo ko mujjee yóbbu tribune quotidien ne ko gis nga gaar bu mag kër ñang gédé ndaamaatu population yi dañoo mujjee faf nag abandonné fi nga xam ne mooy seen dëkkuwaaye cettt li métti na moo taxit maire bu Touba Abdou Lahad Ka moo xam ne dafa tële ngir indi ay solution si mbir mii ndaxte lii daf koo ëpp sax doole laa la wax bu gaan gay dane ma ngay exhorté nag autorités yi ngir ñu mobiliser wu nag tey indi réponse humanitaire ngir wallu ñi nga xam ne ñoom ñooy victimes yi waaye gis nga lu jëm si mbirum plan Orsec gaan gay dane na ah fi mu ne nii yaa ñu doo comprendre de turbine yéen a kaay ne ko gis nga si waxtu woowu ay moto pompe waaye li mu wax mooy dégâts matériel côte nag fi mu nii la ñuy gérer vox populi na ko inondation sa duwaanu Touba ñaari nit nag kon nag daal la ñuy faatu ñàkk seen bakkan juróom ñaar si ay am si ay gaañu-gaañu ak situation bu doy waar boo xam ni doo comprendre de yégle gis nga taw bi si boppam nag moo yàgg sa dëkk bu sell ba Touba moo taxit nag lu ëpp nag si ay téeméer si ay kër ndox mi moo ko mujjee faf nangu nag kon nag bëri na si ay kàcce yoo xam ne ay kàcce sinistré lañ sa duwaanu Ndaamaatu Kër Ñang Touba mosquée guy mind Soura Daaru Marnaan wala Mbàkke kon nag quartier yooyu ndox mi fi mu nii yi daal koy nangu yëpp nag foo romb mu mel ni kon situation bi jamono jii sa diwaan Touba dafay compliqué de rawatina nag lu wër grande mosquée bu Touba ak yenn kër yoo xam ne doomi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñoo ko am sa côté boobu te lii ki ko xamle mooy sous-préfet bi moo taxit porte-parole xalif général des mourides di Sëñ Bass Abdou Khadre ngay dëggal nag situation bi nga xam ne kon moo am sa diwaan Touba tey woote nag woote boo l'assainissement daal di wàcc si askanu Touba di ki démb rek si guddi gi waaye gis na Cheikh Tidiane Dieye ma ngay dalal xelu askanu Touba jëmale ko nag kon si jafe-jafe gi nga xam nekk kon nag ñoom ñoo cuune seen cuune bopp moo taxit fi ne nii jafe-jafe yi nekk fi ba léegi rek l'observateur ne ko gis nga Touba fépp ndox la fépp la ndax taw bi dafa mujjee yàgg nag moo taxit ñaari nit ñàkk seen bakkan ak ay dégâts yoo xam ne oh bari na l'observateur daal di def ak ñu nag ab révélation boo xam ne si cause bi nga xam ne moo waral inondation sa Touba yëgle kaay bi nañu gis nga ministre Cheikh Tidiane Dièye kon nag daal na jël engagement bi nag sa kanamu xalifa sëñ Muntaxa ndax situation bi na nekkul na Touba kese la xew de ndax boo demee sa waanu Kaolack ay kàcce yu bëri yoo xam ni comme innama laa la mi moo ko mujjee nangu lii quotidien ak ay dégâts yu bëri la ñu nemmeeku ne sa tuwaanu Touba ndax taw boo xam ni taw bi si boppam moo mujjee bëri moo taxit fi mu ne nii dëkk ba comme ndox sous préfet bu Touba nag la muy wax mooy situation bi nag daal lay compliqué fii si diwaanu Touba de le quotidien na ko taw bu mag taw bu rëy taw bu fort te métti ñu nemmeeku ndiki démb sa duwaanu Touba yéegle kaay bi nag daal di xayma taw bi nag ci diir bi nga xam ni kon nag moom la am cent quarante millimètres ci ndox boo xoolee nag ci benn guddi nag xëy taw bi daal di koy sotti rek yéegle kaay bi nañu lii nag moo tax ñaari nit mu génn cee faatu de ndeysaan lu métti kër yu bëri nag fi mu ne nii daal di màbbu rek taw bi moo ko màbbal moo taxit état bi kon fi na nii ma ngay digge nag ay jéego nécessaire ci nu mu gën a gaaw ngir régler li nga xam ni mooy problème mu taw bi réew mi quotidien na ko taw bu mag bi nga xam ni daal dañ koy nemmeeku sa duwaanu Touba bilang ba nag bilang bu métti la bilang bu doy waar ndaxte ñaari nit kon nag la wax ne ñoo faatu ñàkk seen bakkan waaye gis nga nag li wër jumaa ji jàkkaalu jumaa ji ak yenn kër yi nga xam ne kon doomi Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñoo ko amee foofu noonu si alentour yi dama ne fépp ndox la laa la wax bëri na nag si ay bagage yi nga xam ni kon nag dafa yàqu nag te seeni borom fi ne nii ndeysaan ñu ngi si guddi gu bët sëtagul de ñu nekk kon fi ne nii

daan nañ am si publication rapport IGE inspection générale d'état yëglekaay bi nañu ab problème nag am na de ndaxte la jeune Mimi noonu la ko yëglekaay bi daal di xamle ndax Mimi Touré moom si boppam nag ab rapport ko épinglé woon nag jëmale ko nag ci wàllum conseil économique social et environnemental bi mu jiite woon yëglekaay bi nañu rapport boobee tamit ñu ngi koy xaarandi de Birahim Seck ay kàddoom si bés le jour na ko yow président de la képp koo xam ne rapport ko épinglé bàyyi rek yoon mu def liggéeyam si du quotidien na ko en tout cas lu a xeex wàllum délinquance yéegle kaay bi nañu gis nga nag bal ba tàkk na ndax di ki démb talaata fukki fan ak juróom-ñaar sa ñu taxawale nag li nga xam ne mooy ab pôle judiciaire financière te seeni lim daal di toll nag si ñaar fukk ak juróom-ñaar si ay juge te seeni mission nag mooy jublu nag ci dossier ak rapport yi nga xam ne gaa ñi seen bébét mooy réduction des comptes face la délinquance financière ak ay crimes yoo xam ne ay crimes économiques la <laughs> waa baax na dama gis nga fi ñu jëm léegi yëfi leer de waaye gis nga yi si ndox mu bari ah